ah mbokk yi ñu ngi ci troisième combat bi nga xam ni mooy troisième combat préliminaire bi ci diggante waaw waaw ci diggante ki nga xam ni moom mooy Rane Diop ah, bu écurie Thiaroye-sur-Mer ak Général Kaïré bu daara ji ñaari mbëri jàppante nañu eh, eh. ñaari mbëri jàppante nañu làmb ngi ah tey jii 4 avril gannaaw li nga xam ni moom mooy làmb ji tey jii ñu ngi xam ni moom mooy ah, la mbëri mbàkk yi làmb ngi toujours la même ah daan ko daan ko daan ko daan na ko laa ilaaha illallaah arbitre boo ngi si diggante ki nga xam ne moom mooy Ran Diop ak ki nga xam ne moom mooy général Kayre Ran Diop moo moo féete seen ndeyjoor général Kayte général Kayre féete seen càmmoñ arbitre boo ngi wax ak ñoom le 4 avril 2019 fii si stade Iba Mar Diop ah ndeysaan ñaari mbër yi arbitre sifflé na général Kayre arrière na am na mu dugal ci ñoom am na lu mu ñuy ñaan waa ñaari xale yu ñamante lañ leetoo ñu ngi leetoo ñu ngi leetoo ñu ngi leetoo Général Kaïré gi mel lu dox si kawam ay ay eh, gëdd na de Général Kaïré ba ki nga xam ne moom mooy Rane Diop Rane Diop féete seen ndeyjoor Général Kaïré féete seen càmmoñ Général Kaïré moo am ngemb lu am lu xonk li Rane Diop moo am ngemb lu weex li ayca ñaari mbëri ñamante

waaw waaw ndeysaan ayca ñaari mbër yi leetoo ay ah Rane Diop gudd na ko léegi Kayra buuse ñëwaat laay laay la laa fii tey mu neex ndeysaan man su ma ah daa Kayra daw na sang ko eh Rane Diop dugal na ko. dugal na coup waaye dalul Raam dugal na coup waaye dalul eh jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu dugg bi baaxul da koy yóotu ñoom ñaar ñëpp ku ne amul ngemb mi ngi jàpp ci téere ba ndogal lonkukaay ba jàpp na ko ñaari xale yi ñu ngi wutal te ngemb ah booy kere la général Kayre ñoom ñaar ñëpp am nañ ku nekk jàpp na sa ngemb morom eh, eh Raed Adja yëkkati na ko oh Rane Diop Rane Diop daan na général Kayre Rane Diop daan na général Kayre wooy Rane Diop daan na ko Rane Diop daan na général Kayre jël bu set wicc da koo yëkkati ba ci kaw door ci suuf oh ma ngay siisu ma ngay siisu làmb gi. arbitre sifflé na ci diggante ki nga xam ni waaw waaw mooy Sabala féete seen càmm seen ndeyjoor ndeysaan Boy Joe féete seen càmmoñ eh Sabala nga aniyar Sabala aniyar rek génn waa Sabala li mu def nii <laughs> daw na li xale naan mi ngi daw ah mbaadu xel la ndeysaan mu ngi may fàttali bëre bi nga xam ni moom la Balla Gaye bëre woon ak Baboy ndeysaan prix ba Balla Gaye waaye def na ko ñaari yoon eh, eh. ñaari mbëre seen leetoo bi jege na sabara Boy Joe mi ngi jiital tànk càmmoñam ñoom ñaar ñëpp tànk cam la jiital ah bëre day gaaw laa ilaaha illallaah loxo yeegi laalante boo doo jàppante nañu jàppante nañu eh Sabala eh, dugg na Sabala dugg na Boy Soo jàppante nañu Boy Soo moo yor ngemb gu xonk gi Sabala moo yor ngemb Lagos bi ñaari mbër yi ah sa Boy Soo jàpp na ngemb Boy Soo jàpp na ngemb Sabala daa mel ni mbapatkat la eh, eh door na Boy Soo door na léegi mi ngi door frappe cee yàlla. éé Boy Joe Sabala jàpp ngemb for a Boy Joe mi ngi frapp Boy Joe ak Sabala Boy Joe nekk écurie bi a xam ni moom mooy Brak Mbolo benn Brak Mbolo Sabala nekk manga écurie manga de éé ñu ngi ci saaku Boy Boy Boy Sabala day wër ngemb waaye Boy Joe bañ na ko laa ilaaha illallaah <laughs> wuy yaay eh eh eh eh, eh. eh, eh Boy Sawara eh eh caxabal na ko caxabal ba na caxabal ga may na woyoo aywa frapp frapp aywaay eh fam ko yegg na fam aywaay سب لک سب لاپنا ٹنک سب لاپنا ٹنک سب لگا ٹنک بھی آئی وائی سب لاپنا ٹنک اے بھائی اور فراپ لائی لائی لو او بول سو بول سو مجھے خراب Eh, Sabala Sabala sëgg na ruux na bopp Sabala ruux na bopp bi ni mbët <laughs> wéyoo ndeysaan booy Boyzo Boyzo mi ni ko sama xarit di waxee aaroona frappe ay waay frappe Boy Joe ngay frapp woyoo ma ngay door Boy Joe <laughs> ak ki ni moom mooy Sabala Boy Joe Sabala ñoom ñaar ñëpp jàpp nañ ngemb ñoom ñaar ñëpp jàpp nañ ngemb ñoom ñaar ah Boy Joe nga yor la ko ba waaye waaye Boy Joe daan na ko daan na ko daan na ko daan na daan na Sabala Boy Joe daan na Sabala. woowoo da ko ba pare dóor ko da ko ba pare daan ko oh bañ na bañ na ay waay ay waay oh Cissokho Cissokho Cissokho Boy Joe ngay raam ma ngay jékki suuf si mais lu muy seet Boy Joe lu muy seet Boy Joe lu muy seet ay waay. Eh. laaj na ndax pare ngeen pare nañu Ousseyn Ndiaye nekkee kii Bat Seras hey hey hey hey waaw yow ndànk ayca ñaari mbëri ñu ngi lootoo na suuf yéewee frappe eh gis naa fi frappe hey hey hey gaaw na gaaw na eh kañ Mor Kang Kang Ousou Ndiaye laay laay la laa jàppante nañu ñaari mbër yëpp am nañu ngemb ñaari mbër yëpp jàpp nañu ngemb wuyaayoy wuyaayoy wéehée laay laay la laaw jàpp na ko ñu ngi lee ñu ngi jàppante ba léegi yaa cëp ñu ngi jàpp frappe fraat day mbaq li toj mu rey ko fraat ah oh daan na ko daan na ko doxul jàmm doole doxul jàmm oh, لائے لا چھئی خراب لی خرل ملی لام بجائیں گی jëy jëy protection jëy daal amul déggal ma xool li mu kenn du jëy xool li jëy indi fii ay xale ndaw Karaté xam nga ne ñii bu ñu màggee réew mi am sécurité ndeysaan eh eh arbitre sifflé Boy Dakar Boy Dakar t Boy Dakar moo sol ngemb gu wert gi مخصو رکھ خراب مام تم Baye Max ci tànk caar tànk ndeyjoor la jiital wéy frappe frappe na ko eh eh eh, eh, eh, eh frappe bul Baye Max Boy Dakar oh génn saako génn fi li wóor li Boy Dakar Boy Dakar. ah Boy Dakar da eh eh eh daje nañu frappe eh, hee eh. hee laa ma jë hee eh, hee Boy Dakar Tmax Boy Dakar Boy Dakar Tmax ci ñu ngi leetoo te kurpeñ dalagul Boy Dakar sànq ba léegi mu ngi sànni ay frappe mais benn frappe dalagul wéé bëre leen te max Boy Dakar leetoo bi leetoo ngi leetoo ñu ngi bëgg jàppante loxo. Temax a ngi jege rek Boy Dakar a ngi jege Temax duñu gaaw a dóorante parce que ku si nekk tànk day joor la jiital ku eh Temax ah, Boy Dakar frappe Boy Dakar frappe waaye dalul dalul dalul Temax lu mu bëgg bëgg dem te max bii daa bëgg dem waaye Boy Dakar a ngi yor frappam rek eh daa bëgg dem Boy Dakar a ngi yor frappam frapp sigi na Boy Dakar sigi na Boy Dakar sigi na ñaari mbërëb sigi na fii lu nga mën na fi am ayca ayca ñaari mbër yi ñaari mbër yi ah lamba ngi nii ay waay xool ma kaw tur bi mais stade bi fees na dell stade bi fees na kenn du jeey jëm eh, eh frappe te mag fi frappe na léegi door na ñaari mbër yi dañoo ñaari mbëri dañoo ñëmente Tmax dem na ah demul ñaari jaadu jàppante nañu jaayee eh, frappe frappe jàppante nañu jàppante nañu frappe Tmax a ngi frappe ci suuf Tmax a ngi ak Tmax Tmax maanaam moto la moto waaw waaw léegi nag eh door frappe frappe daaw eh, Boy Dakar daan na Tmax Boy Dakar daan na Tmax Boy Dakar daan na Tmax woowoo Boy Dakar daan na Tmax Boy Dakar daan na Tmax Boy Dakar dal na Temax Boy Dakar dal na Temax yéyé Boy Dakar Boy Luy Coor eh luy eh, eh Boy dóor Luy Coor jàpp na Luy Coor jàpp na ko Boy a ngi Luy Coor Boy ak Liss Dior Boy ay Boy a ngi door frappe Boy a ngi frappe ay waay Liss Dior a ngi jàpp ngemb Liss Dior Liss Dior a ngi faas Liss Thioro écurie Fass Boy frappe Liss Thioro Boy eh Liss Thioro moo yor ngemb lu weex li Boy moo yor ngemb lu vert li féete suñu càmmoñ Liss Thioro moo lépp waay war na ko domb wéé luy coor daan na booy laay laay luy coor luy coor moo daan kii mooy luy coor luy coor daan na ko waaw waaw waaw laay laay la laa waa luy coor mi fu mu jëm پھر مجھے پڑی یاری بڑی چپ چلمیرم کاری شرما صف چلمیر چلمیر باہل mooy ngelaw yooyu di naaw di def wër yee yee li la la waa li la la waa yow li la la callam be raw la kaani saram waa yow li la la wuyaay wuyaay wuyaay daan na ko ñu ngi fi nga xam ni moom mooy stade Iba Mar Diop Dieye production organiser lamb ji nga xam ni muy 4 avril bi nga xam ni fête de l'indépendance Dieye tey sa taxawaay indi nga cee jëlee lamb ji indi ko ci bis bi nga xam ni moom mooy 4 avril lan moo ci xalaat bi ba nga jël ko indi ko ci 4 avril bi Dieye production. waaw sant yàlla rek sant yàlla julli ci yonent bi bu Euh, wax na liggéey bi bu rafetee yéen Hann TV yéen la yéen a ma defal lépp li ci war yéen a ànd ak ñun fi lépp li ci war kon maa leen di sant di sant kilifa baax leen sant yéen ak seen suñu bi vraiment suuru 4 avril euh, fête indépendance la ñu ciy honoré ñu jar a honoré moo tax rek ñu indi ko fii stade Iba Mar ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp mais en tout cas daal loo mën a ak lu mën a xew kontaan naa ci Sénégalais yi maa ngi baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak encore di baalu ñëpp ak di ñëpp ak encore di sant ñëpp di gërëm ñëpp aw ma a man du ma yàq lu maa ngi sant ñëpp loolu daal laa mën a tey jéey tey teral nga Sénégal teral nga art képp kuy artiste nga jël làmb tuddee ko Cheikhou Gueye ñu gën ko xam si Sanekh lan moo la poussé ba nga tuddee ko Cheikhou Gueye waaw xam ma Cheikhou Gueye man damay ànd ak ay nit bàyyi leen ñuy doxal euh, laat moo ko tuddee làmb ji mu ko tuddee làmb ji sax daanaka fekkuma Sénégal kon buñ ko tuddee làmb kooku moom lu rafet la rek dama koy rafetlu sama staff li ñu def rafetlu laa ko kontaan naa ci ak seen seeg ñëpp kon daal jërëjëf. jërëjëf jërëjëf ñu ngi ci neuvième combat bi diggante Ozo bu écurie Yaraax ak Poulain Moussa Ndoye doomu nday Moussa Ndoye kookoy Ozo si moo ki nga xam ni mooy Dabdaan écurie Diamniadio Dabdaan moo ñu féete càmmoñ Oso moo ñu féetee jor ñaari mbër yaa ngi leetoo Oso tànk ndeyjoor la jiital delluwaat nañ ci digg géew gi Oso dab daan Oso dab daan frapp dégguma ba léegi dégguma waaw waaw eh waay déggal musandoi Ndoye nee la woon Oso dina indi indépendance biir Yaraax kon Oso tax na Faraab Mbodj sa la wax. ndox mu ndox mu tàng bi baax na heure bii de. ah ndox mu tàng bi baax na heure bii. seddaay bii nii. kooku loo soo ku ñuul ko dab daan mooy ku xees ki féete ñool mi ci kaw. Oso oh, Oso oh, mi ngi doon taxaw oh, dab daan Oso dab daan daa mel ni dab daan jàpp na Ozo jàppal ci gémb li yéehée Ozo mooy point Moussa Ndoye bi Ozo dab daan wuyaa yooy wuyaa yooy Ozo mu tàng bi baax na heure bi ah sa waay boo ci yàggee du baax ah, ah, ah. kon mu tàng bi ba léegi gisaguma ñaari mbëri dégg gu ma frappe Oso eh Oso mi ngi jël waaye dab daan bàyyiwu ko ci de laay laay la laa yow daan pour le foot de l'âme déet. moom yorul benn galaaj ndeysaan. Oso daal xam naa ni séeréer la. wiyaayoy. dab daan daan Leewtoo ee dab na mbokk yi ñuy seetaan Hann TV mbokk yi làmb ngi nii làmb doxaat na yeneen jéego làmb demaat na ci feneen mooy que ni làmb ji nga xam ni moom lañ doon xaar ba ba léegi 4 avril yàlla sottal na ko muy làmb ji nga xam ni la jëy production defoon kon mbokk yi ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye di wax ni ki nga xam ni moom mooy euh, mbaru yaraax bi loo soo démérité woo bëre nga tey du bésu ndam suba bo amee ndam bo amee bëre làmb yàlla nga ci am ndam làmb noonu la léeg ngay daj léeg-léeg doo daj kon tay du sa bés ñu ngi kontaan si yow bëre nga def ngay fu jàmbaar ba daanu kon ñu ngi remercier production moom mi nga xam ni moo organisé woon bés bi 4 avril Sénégal yëpp teewee làmb ji làmb ji feesan del, foo sànni mbàtt mu doj kon tey jii nii la làmb waroon demee si diggante ki nga xam ni mooy Kabou Gueye ak ki nga xam ni mooy Colifay numéro 2 Kabou Gueye daan Colifay jël gu set wicc wicc bu amul benn werante kon nag jërë ngeen jëf kontaan nañ ci yéen ñu ngi leen di bëggee yéen ñi nga xam ni yéenay seetaan TV bëgg nañ ci yéen jërë ngeen jëf beneen ba beneen yoon ak beneen làmb ak Hann TV jërë ngeen jëf